waaw mbokk internet yu Source yi dal leen jàmm ci li gën a fes ci ëttu yëglekaay yi réewum Sénégal saa si tembe dama ni ab njàkk buy baax la foo laal rek mën na laa gaañ Source ay yëglekaay na ma kaay ma xamal la gàmm gi nga xamante ni moom la ñu weesu kii nga xamante ni moom moo di Serigne Moustapha Sy maa ngay si bu baax a baax ma ni en ah, Source ay yëglekaay na ma maa la ko wax de Serigne Moustapha Sy nee na Ousmane Sonko tey jii boo dundee ba tal ay élection ak nomination xamal ni yàlla ak sama jëmm ji la la waaye maa ngi lay xaar maa ngi lay xaar keroog ba ñu jëmee ci élection législative yi ñu mal ba tey kàddug sëriñ Moustapha si mu naan président ba si Bassirou Diomaye Diakhar Faye laa xamul nu ma koy def ndax nit ku baax la ba tey nag yëglekaay bi daal di dikk ñun daal di lii mooy gat sa gat sa nag ba tey kàddug Serigne Moustapha Sy li ñuy seen ci xëtu source ma nga naan Ousmane Sonko yow laay waxal nag du ma ne kii du ma ne kaa yow ci boppam laay waxal su fekkente ni dangaa foog ne mën nga ñoo ndax maa nga ñuy santage dangay nax sa bopp waaye Moustapha Sy ba tey mu naan président Bassirou Diomaye Faye moo a jaaxal de ndax nit ku baax la tey am na mbébét yu baax a baax ci réewum Sénégal ba tey moom Serigne Moustapha Sy naan Ousmane Sonko nag dalal te xam ne réewum Sénégal kenn mënatu koo nax jamono ji askan wi dañoo yeewu de dañoo yeewu bu baax a baax les écoles yi ne kay ma la ko wax de Serigne Moustapha Sy maa ngay attaqué Ousmane Sonko ak ñamu àndal ak jamono ji taxawaay bi mu am ba mu yéegee moom Ousmane Sonko ci bopp nguur gu ba léegi dafa mel ne daf ñoo fàtte xamatuñu nag laa la wax waaye Serigne Moustapha si nee na xamul ana nan lay def son excellence président Bassirou Diomaye Faye booba vox populi ba tey ma ngay doxantu foo fekk ci waawan dalal nag kàddu yi nga xamante ni moom la Serigne Babacar Sy Mansour daal di xamle jëmale ci jafe-jafe askanu Sénégal moom Serigne Babacar Sy ne ndax waaye duñu defaraat suñu taxawaay ndax duñu defaraat suñu ay jikko jamono jii dafa mel ni réewum Sénégal yaramuk màgget la foo laal rek dafay metti ñenn ñi nag ñàkk nañu seenuk liggéey ñenn wane seenuk liberté lii mu mel ni ab civilisation la waaye nag boo xoolee ba xool nag ñaaw ñaawteef gi bari na ci réew mi ger ak ñàq war ma ger ak ñaq war ma mel ni léegi nag safatul kenn ci réewum Sénégal ñu yëkkati wax ju ñaaw di ko teg ci dodd ñoo xamante ni yàlla ci boppam moo leen baaxal nañu bàyyi xel kilifa diine yi nañu bàyyi xel i tamit këru kilifa diine yi moom Serigne Babacar Sy Mansour ma ngay woo ñi nga xamante ni ñoom la yàlla dénk nguur gi nekk ci suñu ci boppu Sénégal yeeg bu baax a baax fexe ba dakkal lii nga xamante ni moo nekk ci réewum Sénégal dafa mel ni gaa yi àndatuñu ak seenug sago moom ba tey Serigne Babacar Sy Mansour ci xëtu Vox Populi la mu xamle moom moo di askanu Sénégal nañu dellu ci suñu ay valeur waaye itam nañu dellu ci jàngaleeg Seydina Mouhamed ubbi l'observateur yéene kaay mi naan maan ku wax lii nag danga wax la ca des nañu wax ci coow lii nga xamante ni moo dox ci réewum Sénégal ak kii nga xamante ni moom moo di Fonds monétaire international FMI bu baax a baax l'observateur yéen kay naan maan FMI dafa mel ni saa si tembe taxaw na temb ca kaw projet bii nga xamante ni son excellence lu Diomaye Faye moo ko dal di bëgg a taxawal en tout cas def nañu taxaw seetlu jëm ci premier semestre bu atum 2024 ba tey FMI nag ma ngay àddu jëmale ci rationalisation des exonérations ak naka la ñu mën a def ba defaraat lii nga xamante ni moom moo ñeel suñu ay recette fiscale ba tey nag ñu ñuy xamal ne bor yaa ngay yokku de turbine quotidienne maa la ko wax bu ñu sukkandikoo ci FMI Sénégal dafa mel ni nag dara baaxu fi metti na de metti na bu baax a baax a baax yéene kaayub des média bi di ma xamal ni lii ñuy wax inflation globale ralentir na ba toll ci 2,2 pour cent nag ci premier semestre bu atum 2024 ba tey FMI nag di ñaax suñu ay njiitu réewum Sénégal ngir ñu defaraat seenu toogaay càmbaraat bu baax a baax a baax seen ay yitte jëmale ko ci rationalisation des exonérations fiscales booba Walf Quotidien ma nga naan maan ku wax lii wax la ca des ña ngay ñaaj jëm ci ay élections législatives yéenekaay bi fësal na taalub Ousmane Sonko nag naan ma nag lii nga xamante ni moom mooy élection législative yi dafa mel ni Ousmane Sonko ma ngay gëlëmal ñi nga xamante ni ñooy ay alliés yéenekaay bi fësal chronique bu yaatoo yaatu bu Ibrahima Anne jëm ci député yu yees yi nga xamante ni réewum Sénégal mujjee naa jànkoonteel ak ñoom ana nan la ñu mel yan anam lañu ñu leen tabbee le quotidien yi jeexagul de dafa mel ni ma ngay yokku nag Sud Quotidien naan ma waaw waaw lii nga xamante ni moo ñeel élection législative bu fukki fan ak juróom-ñaar ci weeruk novembre nañu wax ci lii nga xam ne moom mooy caution ak parrainage yéen kay ba ne ma set sage nag daañu toog waxtaanee ana ci yenn anam lañu nar a demee ci yi la jongante pencum ndawi réew ma waxtu woo wax forum justiciable ma ngay àddu ba tey ci xët Sud Quotidien naan administration électorale bi xoolaat leen bu baax a baax ana yenn anam ngeen di waxtaanee ak askan wi en tout cas na nekk discours wu leer nañ yëglekaay bi naan ma boo maytuwul nag candidat ya nag dinañu bare bari ba maara day taali jamono joojee Aminata Touré la ñuy seen ci xetu vox populi ma nga naan bu baax dégg naa ne dangaa créer ab parti duppee ko nouvelle responsabilité Aminata Touré naan première ministre ba woon dikkaatal bu baax a baax ci les anciennes responsabilité laata ngay ñëw ci les nouvelle responsabilités Aminata Touré xam ne moom moo ñeel la reddition des comptes dama ni procureur na accélérer la cadence nu mu gën a gaawee gën a baax moom Aminata Touré ba tey nag ma ngay critiquer lii nga xamante ni moom la FMI tegtal di ma xamal ni waxi FMI du zam-zam boo xamante ni rek dañu ko war naan ci nii màcca naa nañu xam ne lii ñuy wax mën nañu ko gëm ko mën nañu ko bañ a gëm les éco yéene kay naan maan nañu wax ci leneen ma ni ko lan mu ne ma renégociation des clauses yi nga xamante ni moo dox ci contrat diggante ACR ak AO Power ARCOP ma ngay sàkku ñu ibbi ci ab l'enquête de ba tey ay awokaay yi nga xamante ne ñoo fi teewal société bii di AO Power la ñuy ñaaw lu mooy ay njuuj nga te la ñuy sàkk mooy ñu defaraat kon te mu gën a gaawee sayeer ñaa ak ñamu àndal la ñuy sàkku nag moom mooy fëgg nañu buntu aseer te la ñuy sàkk bokk na ca ñu jox leen ay documents yu leer nañ yoo xamante ni ñoom daañu ko mën a exploiter ci na mu gën a leeree ba tey nag yëglekaay bi nga xamante ni moo di bés bi le jour di nag ak ñun daal dina rebondissement nag am na ca contrat ba dox ci diggante ACR ak AE Power yéeni bi di ak ñun ne ARCOP nag bëgg na lu leer de bëgg na lu leer naññ ci diggante yooyee leeral ya ca page 3 bu bés bi le jour source ay yëglikaay na ma maa la ko wax de aar ARCOP daal nay bind ACR la muy sàkk moom mooy ñu indi ay leeral jëm ci skandaal bi nga xamante ni ña nga koy wax jëm jëm ci marché bii ñuy wax électrification rural nag jëm lu toll ci fanweeri milliards ak juróom-ñaar ci suñu ay koppar dafa dafa mel ni nag AEE e Power yëglekaay bi nee na am na am na ndam gu njëkk de ñu jeexal ak tàggat yaram ak yëglekaay bi di point actu sport la mu xamle moom moo di lii ñeel qualification CAN U20 mu ne Sénégal nag daal dinay dóor 2-0 ñii nga xamante ni ñooy waa Mali door na nag lii nga xamante ni moom moo di entrée en matière am bu baax a baax mbokk yi lii moo gën a fës seetu yëglekaay yi suuf saa di leen jox di daje ëllëg ci yeneen i xibaar